ceeb bokk na si denrée wala denrée bi gën a am importance fii si dundin bi parce que comme ni ko yeneen ministre doon waxee famille boo dugg tey fii si Sénégal su re añeewul ceeb dana ko reere wala mu ndékkee ko sax am na ñoo xam ne sax dañ koy def donc dix produits yi nga xam ne gouvernement bi da koy état bi da koy importer ceeb moo ci gën a am solo tey jii rek ministre mi ngi koy rappelé docteur Mabouba Diagne pour ñu autosuffisant war nañ mëna régler donc li importer ci ceeb tam toll ci 1 500 000 tonnes de riz bañ xalaatee lool ñu né nak dañ bëgg jox ministre buy dugg honneur bi mu lancer projet bu reuy bi. parce que lepp luy soxal muy semence foog naa ne dundal mbay te foog naa suñ bëggee am mbay mu sax mu law te mëna jur espoir il faut que semence bi ñu gën cee góorgóorluwaat du baax bu baax a baax donc pour ñu am production bu baax il faut ñu gën a travailler suñu semence dem nañ ba si biir ministère bi sax léegi bëggatuñu tudd sax lu ñuy wax ay écrémé mooy venant tout tout venant dañ bëgg di travailler si spéculation bu nekk naka lañ mën a dem ba af suñu indépendance suñu souveraineté si semence rawatina nag si ceeb bi moo tax tey ñi ngi gërëm bu baax si sama tur si turu si turu gouvernement bi si turu président de la république ak premier ministre le gouvernement japonais bi nga xam ne dana dugal copor bu am solo le directeur de l'agriculture dana ci ñëwaat si montant bi pour voir jàppale Sénégal pour ñu am jiw bu baax si ceeb mën a yokk production si ceeb donc l'homme moo taxoon tay ñu ñëw représenter monsieur le ministre lancer projet bi wax nag ne xaw nañoo am tuuti retard dañu bëgg suñ ko lancé rek activité yi mën a démarrer si région yi nga xam ne donc euh, foofu la projet bi jëm